li nga xam ne moom mooy euh, la tentative d'aventure euh, présidentielle euh, nga bokk ci ñu ñu recalé pour défaut de de parrainage vous pu valider que vingt-deux mille et quelques parrainages mais les les recalés dañoo taxawal un collectif taxawal un collectif di dénoncer ni ñu mënee les opérations de de de de, de parrainage mbir mi leerul Euh, am na lu bari lu ci lëndëm ñenn ñi jàpp ne dañu leen spolier euh, gisuñu ñenn ñi ci fichier bi mu nekk autant de problèmes et autant de manquements yu leen poussé ñu taxawal un collectif pour xeex seeni droit yow lu tax intégré woo collectif boobu euh, dama gis ne biñ la signifié ne dañ la recalé et puis vous avez fermé la page pourquoi waaw gis nga Maimouna dañoo dugg ci politique dafa doy waar lool Sénégal et je pense que mais ñun nag lépp fu ñuy dugg dañ ciy dugg ci nu leer gis nga même su dul loolu yenn coalition yi yenn plateforme yu bëri ay FNTRAD ak yooyu dañuy toog xool est-ce que war nañ dugg waruñu dugg suñu warul dugg duñ ci dugg xooluñu gain politique bi ñuy am mais dañuy xool est-ce que c'est conforme ak ñun li ñu tax a def politique ñun euh, parrainage bi biñ ko defee ba pare conseil constitutionnel da lay jox clé clé boo xamante ni daf ci répertorier lépp erreur yi ngeen def yëpp ñu répertorier ko benn je pense que ñun euh, li ñuy tuddee non identifié au fichier euh, am nañ ci plus de dix mille bëri ñu xool ko nag ñu toog xool ko saytu bu baax a baax biñ ko saytoo ñu xam ni ça nous était imputable voilà et je pense qu'il y un problème de pédagogie xam nga Sénégal dañoo am problème pédagogie fépp yaakaar naa ni su fekkoon le terme utilisé c'était non conforme au fichier mais pas non identifié au fichier du am problème parce que clé bi ñu jox yaakaar naa ni peut-être ñeneen yi aussi moom lañ jox mais ñun ci suñu côté euh, non identifié au fichier bi c'est par rapport ak à quatre types d'erreurs parce que gis nga parrainage bi fiche bi fiche bi ñuy yóbbu ñu mhm. ñu bind après dañ koy jël ci benn fichier électronique fichier électronique boobu nag la ñuy contrôler su ñuy jël fichier électronique bi nag mu mën a am erreur ci prénom ci nom ci numéro carte euh, d'identité ak date d'expiration de la carte mooy quatre éléments yi nekk ci fiche bi plus la signature par exemple may Maymouna xawma sa bos est-ce que am na i traitement wala i la su fekkee i la kese du i traitement soo ci defee i traitement lay naan non identifié erreur lay doon lay doon portant sur le prénom ñun noonu la defal lépp man mii sama parrainé naa sama bopp mais su ma amoon erreur ki may saisiral ki ñuy saisir sama tout su ci su ci defoon benn erreur dem par exemple amul accent su ci defoon accent dañuy def non identifié c'est sévère hein au fichier c'est très sévère c'est extrêmement sévère, parce que yu gën a bëri ñu gën a bëri sax ñun ci numéro carte euh, d'identité bi la dafa am ay espace du ay erreur mais ay espace la après la ma benn informaticien ne ni espace bu ne dañ koy considérer comme caractère c'est très sévère dafa mel ni parrainage bi benn aptitude informatique la après c'est extrêmement sévère moom la laaj waaw mais euh, ñun bi ñu xoolee xam ni que ça nous était imputable dëgg yàlla mënuñu nag ñëw naan dañuy dugg ci ay collectif di dañu voilà. dañu donc yow da nga Euh, la sanction mooy ñu recalé la parce que jàpp nga ne ce sont des erreurs qui vous êtes euh, qui vous êtes imputables et bu ne yow bugguloo ko politiser duggoo ci politique ndax sax. non mënuma ci dugg ci politique su fekkoon dara loo xamante ni jàpp naa ne ci conseil constitutionnel la wala ci keneen la mais dama ciy dugg mais loo xamante ni ñun la ma ne na na nañu defar waat ba beneen erreur yii duñ ko defati. su ñu fi amaatee parrainage yaakaar naa ni danañu jàll parce que gis nañu lu ñu reproché loolu nag dama ciy dellu question de pédagogie la il faudrait que lu ñuy proposer beneen yoon su fekkee dinañu def au lieu de dire non identifié au fichier parce que looloo indi je pense wax bi yépp euh, parce que non identifié au, au, dafa mel ni parenage yooyu dañoo neen bokkuñu ci fichier bi alors que su fekkoon dañoo def non conforme au fichier du du indi benn problème donc. Euh, kon baadu euh, gars yi seen wax ju bari ji parce que les les hommes politiques sénégalais ils de de mauvais perdants du ñu nangu mukk dañuy dem élection présidentielle élection transparente ñu dóor leen élection bi jaar yoon. mais il faut qu'il trouve le moyen de de parler euh, de fraude d'une élection entachée on ne va pas reconnaître le président on va dépo déposer un recours donc yow euh, nanguwuloo livré ci ci livré wu ci jeu boobu jàpp nga ne les procédures au conseil constitutionnel ont été transparentes et donc li nga mérité rek lañ la jox. en tout cas ñun su ñu bi ñu xoolee ci suñu parenage xool li ñu jox parce que conseil constitutionnel def na effort. toutes les erreurs yi nga xamante ni moom la ñu koy wan ñu ko def ko ci clé foofu nag wax dëgg yàlla suñu digganteeg yàlla. man mi jiite mbir mi d'abord sama responsabilité la maa ko jiite dama ne ñi ma àndal d'abord man la après les responsabilités sont partagées mais ñu ko imputer keneen alors que ci ñun la. sama parce que vous n'êtes pas la première personne et le premier candidat recalé à me dire ça am na un candidat boo xam ne il n'a pas été recalé mais moom nee na bu ñu leen joxee le compte rendu des erreurs euh, qu'ils ont qu'ils ont qu'ils ont commises les procédures ont été transparentes il comprend pas euh, coow lii gars yi naan dañu spolier dañu sàcc dañu détourner suñu en tout cas en tout cas jàpp naa ne gis nga euh, jafe-jafe yu nekk nii tey tappale bi ñu tappale ba bëgg a reporter élection yi fa la fa la ñuy foofu la sokkee ko fa la sokkee ko et je pense que les hommes politiques li ngay wax nii parfois dinañu poser ay actes yoo xamante ni du ñu xam sax fu mu lu muy indi suba ak jàmm je pense que même président bi muy def rapport bi euh, motif yi boole na ci loolu ñi nga xamante ni recalé nañ leen man nag sama suñu bopp la ñu xam ñun suñu bopp lañu ñu xam mais en tout cas en tout cas ñun mu concernant on n'avait pas jugé nécessaire te bi ñu defee conférence de presse parce que ñu bëri jaaxle woon nañu ci ñu ñu àndal yéen ñu ngi gis ñu ngi def ay collectif bokk leen ci mais man su may bokk ci collectif dafay fekk ni am na lu ma mën a reprocher ay nit voilà parce que gis nga euh, champ politique bi il faut que ñu ñu ñu ñu gënaat ci fal dëgg on a on a on a benn crise bu doy waar boo xamante ni mooy tax tey nga gis ñu ne la opposant bi moo ñëw ci pouvoir bi fekk benn taxawaay la woon rek euh, taxawaay boo xamante ni gëm gëm ko waaw waaw taxawaay bu boo xamante ni parce que en fait nous on euh, dañuy wax souvent waaw da ngeen di critiquer opposition beeg yooyu mais nañu gën jàpp je pense que intérêt population yi moom mooy ñu am ay hommes politiques du pouvoir comme de l'opposition yu dëggu qui son attachés à la vérité suñu perdee man ñu man conférence de presse bi ma def après dama ne dañu sant sant nañu yàlla recalé nañ mais sant nañu yàlla ñu ngi féliciter ñi jàll parce que ñi jàll tamit peut-être def nañu effort ba jàll nañu ñi jàllul ñu encourager leen beneen yoon ñu gën a góorgóorlu waaw mais amuñu ñun benn grief bu ñuy def suñu amoon benn grief bu ñuy def grief bi ñuy def ci parrainage bi rek mais mun a ma wax ko mooy dès la c'est en amont pouvoir bi puisque parrainage des élus dafa am parrainage citoyen ñoom dès le début la ñu jaxase mbir mi mu gis loolu moom euh, yaakaar naa ni euh, danañ ko épargner beneen yoon sénégalais yi danañ ci taxaw parce que am na ñaari candidat yu taxawoon début bi di naan euh, waa Benno Bokk Yaakaar war waruñu def parrainage des élus ñu leen di reetaan ne yéen naru leen am parrainage moo tax parrainage bi dafa metti mais ku décider def parenage élu warul def parrainage citoyen gouvernement bi ni ñu def organiser assèchement defoon nañ ko 2019 defaat ko 2023 bi loolu du dëgg du yoon loolu tamit ay pratique malsaine yoo xamante ni dañ koy def pour ñi nga xamante ni amuñu doole duñu mën a am parrainage suñu taxawee ne waaw ñun deux millions trois millions et même dans l'opposition nit ñi ñu ngi koy def euh, yaakaar naa ni foofu tamit war nañu war nañu jéem a légiférer ñu organiser ko euh, am na ci benn candidat euh, je pense que kii Fall je le cite parce que jàpp naa ni euh, il est même passé au, au parrainage. Kane Fall. e il était à Rewmi nu mu tudd. Déthié Fall Déthié Fall. Euh, je pense que bi muy toog am na benn moment mu ne am naa cent vingt mille. fa yem. je pense que ce ce ce ce maximum ku dem ba am double yow liñ la. liñ la laaj liñ la laaj war nga mën a yem foofu voilà. Euh, mën a waratuñu permettre un candidat voilà te naan dafay dem di wut di wan dooleem ay deux millions mais ñëpp dañoo en fait euh, maa ngi dégg ñuy agiter l'idée euh, de la suppression du parrainage du parrainage citoyen la nga ci xalaat en tout cas parrainage citoyen moom suñ ko supprimer ñu mel ni ñun duñu nekk candidat mais mais il faut il faut que man su may wax dara duma ci xool sama bopp il faut qu'on engage le débat parce que élection yi indi na benn kaw bu doy waar euh, gis nga mbiru participation élection c'est une liberté publique ñun ñëpp dañoo xeex pour nit ñi mu am ay candidats indépendants ak yeneen ak yeneen euh, suñu demee ba ku ne mën a ñu présenter wu loolu principe la woon mais su ñu demee ba am deux cent soixante-dix candidats ça pose problème. il faut s'arrêter et réfléchir. ça pose problème euh, ñaareel bi bi 94 candidats déposé woon nañu seeni dossier 20 jël euh, jàll nañ ci 20 c'est déjà. beaucoup beaucoup. su fekkee ni demande nañu élection yaakaar naa ni euh, avec le parrainage citoyen. ñun moom danañ jàll parrainage <laughs> ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen parce que xam nañu. vous apprendrez de vos leçons. Euh, voilà euh, si on a une soixantaine de candidats voilà est-ce que ce sera une élection crédible dëggantaan il faut que ñu crédibiliser ñu xool nan la ñuy ñu toog waxtaan ñu xool intérêt réew mi ku ne bañ a xool sa intérêt nan la ñuy def ba une élection présidentielle nekk dara lu crédible parce que c'est un rendez-vous extrêmement important